corruption dafay baasu jàngale Seydina Limaamu mu ne ñu ku nekk na doyloo ci li nga xam ne moom la la yàlla jagleel muy wane nag ni corruption war a yàq dëkk mën a yàq dëkk defe naa sax cité na fi structure boo xam ne président de la république Macky Sall daf ko fi créé pour corruption muy of nag mu wane nag ne ñun ñëpp bu ñu tënku woon ci li nga xam ne yàlla moom lañu wax Seydina Limaamu tàggat ñu ci organisation yooyu dootuñu ko soxla defe naa loolu lañu ñu doon jàngal di ñu gën a yàpp ci ne nañu euh, liggéey bu ñu santee liggéey nañ ci jaamu yàlla ndax lim ñu wax mooy ne ku ñu takkal ndomba tànk dañ la liggéeyloo pour ëllëg nga fayu te fayu boobu yaa koy def bu fekkee ne li ñu la dénk liggéey nga ko ni ko yàlla santaane mu woonu nag ñun ñëpp woowaale classe politique beeg Sénégal yëpp nañu lépp lu fi xew nañu dal ndax yàlla moom moo ñu teg lim ñu war a teg te dina ko teggi ni mu ko war a teggee loolu nag di loo xam ne ñëpp dañ ko war a tasaare ba ñu dégg ko xam ne dëkk bi moom moo ñu gën a am solo ñun ñii ñëpp ba ñu mën a euh, li ñuy def yëpp ñu def ko ci dal ku nekk des sa ngëm-ngëm waaye def ko ci nañu ko ni ko yoon santaane ni ko yàlla santaane mu ànd ak dal ñu sàmm suñu dëkk ndax jàmm ci la lépp xaj